asalaamaaleykum mbokki auditeurs yu Oxygène FM ñu ngi amati mbégte di jàkkaarloog yéen ci seen émission bii di diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag euh, théâtre radiophonique la comme niñ ko baaxoo di ko defee saa su nekk chaque lundi fii nii ci rajo Oxygène FM. tey nag ñu toll ci suñu treizième épisode ñuy amati mbégte bu baax a baax di jàkkaarloog yéen ci émission bi suñu émission nag comme niñ ko baaxoo di def Africa Check moo leen ko may. ànd ci ak euh, Théâtre for Change ak ci ndimbalu kuréel gi di Google News Initiative donc nag tey ñuy invité fi gan gu màgg koo xamante ni ku màgg ci liggéeyu Sénégal sax laay wax mu tudd di ja Awadi di yëngu ci musique nekk rappeur bokk ci ñi nga xamante ni ñoo taxawal groupe bi ñuy wax PBS moom nag réalisateur la moom nag mi ngi def engagement bu baax a baax ci lépp li nga xamante ni mooy xew fii ci Sénégal moom génne na sax benn musique jagleel ko lii di corona tuddee ko daan corona ànd ceeg ay musiciens yu bari toll nañ ci ay ñaar fukki musiciens ak lu lu teg donc ñu def way bu am solo ci kii bi moom ku ne xam na taxawaayam ci lépp li nga xamante ni dafay dafay ñëw ci ci réew mi ñu koy jaajëfal bu baax a baax dañ leen di bàyyi ñu découvrir son bi mu defoon après ñuy ñëwaat. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Se laver les mains à tout moment, ne pas contaminer. waaw damay ñëw rek ci suñu invité di ko nuyu salaamaaleykum DJ. maaleykum salaam. waaw ñu ngi lay siyaar di am mbégte wu dalal la ci émission bii di diisoo ngir aaru. Euh, maa ngi leen euh, ñu ngi lay fay bu baax. vraiment kontaan ci invitation bi. di kontaan ñun tamit ci jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo yow xam naa dañuy dem déglu suñu épisode tey après ñu dellusiwaat def waxtaan bu yaatu ak yow ndax ku ne xam na euh, histoire Modou Modou moom dafa nekk benn fecckat. di yëngu ci wàllum dance bu baax a baax mais Moodu dafa am problème ak société bi ndax moom lii di Covid 19 Moodu moom nee na gëmu ko ñàkk ko gëm boobu noonu nag moo ko yóbbul ay jafe-jafe ci liggéey bi mu nekk ndax euh, bu ñu fàttalikoo suñu épisode yi nga xam ne weesu nañ ko ñi mu doon àndal di fecc dem nañu voyage yi dem ay tournée waaye Moodu moom munu cee bokk li tax munu cee bokk mooy ñàkk gëm bi mu ñàkk gëm Covid bi. nanguwul a jël vaccin ñàkk jël vaccin boobu noonu mu ñàkk jël vaccin moom moo ko yóbbee ba sax mënul dem fii nga xamante ni moom mooy états fi gaa yi xam ne fa la ñu dem tey jii nag loolu noonu nag mooy dox ba léegi nii waaye ba léegi ak yi fi jot jaar yëpp vaccin bi jaar nañ fi ci euh, lépp maanaam yi nga xamante ni ñooy jafe-jafe bi yëpp jaar nañ ci waaye ba tey Moodu moom nanguwul gëm li nga xamante ni moom mooy feebaru Covid 19. léegi nag ñu ngi continuer waaye tey jii nag ñu ngi ñëw ci li nga xamante ni moom mooy gants yi ak Covid 19. yi ak Covid 19 moom la ñuy ñëw tey waaye duma ci toj lu bari dama leen di bàyyi ñu déglu ko après ñu ñëwaat ci plateau bi waxtaanee ko daal borom boutique bi mooy fàllu léegi daal dama seetlu kuy ñëw di jënd ay gants lay sol en plus bu lay laaj xaalis danaan la i eh, teg ko fii ci gants yi nga jël xaalis bi teg ko keroog nag benn paa ñëw di jënd mooy jour bu ma sama yaay yónnee ma ñëw paa bi di ko nuyu fàllu dafa xat yi ba fii nuyu paa bi si gants yi après mu ne paa bi looy jënd paa bi jox ko xaalis bi mu téye ko ak gants yi nee na loolu day protégé wu ci coronavirus. yow day wax ni yow xanaa fàllu dafa dof wala du ko dal takk gan di ñëw laa ilaha illallah kon de kooku virus la ba mu fees dell dell dell dell dell xanaa xamoo ni mu koy takkee noonu lu waxoon egsi si loxoom bi ci gan bi lay ñëw taxaw te du raxas loxo yi du def dara laa ilaha illallah yow soxna yow lu tax nga bëgg ay affaire de xam-xam lu yow fàllu man dégg naa dafa am xam-xam de te loolu muy def da cee xam dara soo weddee nañ dem léegi ba ci moom nga xool ko. man li ma lay wax dama ko xam bu baax parce que man chaque jour su ma xëyee di dem école damay xool ay information lu ñu wax lépp ci coronavirus l'autre jour laa ko xool ñu ne waxuñu jël ay gants di ko takk man kay li ma lay wax maîtriser naa ko. yow Fallou da nga koo weddi Fallou mi nga xam ne lu mu yàggee ci jaay boutique léegi nañ dem ci Fallou ñu dem. xool léegi nañ dem. Atom, falou. Ayan soxna gis nga li ma la doon wax moo ngi nii xoolal fàllu bu baax dafay tëkk gants yi ni muy jaayee xale yi ak gants yi ngay weddi fii <laughs> soxna na nga def waay. Fallou ça va ci loo nekk. maa ngi fi rek ana Moodu. Moodu mooy kër ga mën si jàmm. ay ndeysaan woo moom daal léegi moom bu jaasam noonu rek ba nii rek Moodu moom daal mu fii toog moom demul. Fallou de gis nga Moodu de mujj dem voyage dëgër bopp rek moo ko yóbbee loolu. ah oh, Moodu mii moom. waa Fallou sa gant yi nga takk nag pour lan la. loolu la noonu. ma ne lii nga takk sa loxo gant yi moom lan la. lii suma gant yi la ñaari paquet laa ciy am ndax gis nga. nit ñii di ñëw nga di leen nuyu loxo yi nii loolu baaxul nit ñii di ñëw tamit di la jox seen euh, xaalis gi doo xam xaalis gi fu mu jógee loolu tamit dina indi ay xeetu jàngoro yoo xamante ne doo xam foo koy fajoo waaye nag fekkee da am sa gan su ko defee léegi moom daal dara du la jot. waa Fadou ma laaj la gants yi combien de temps nga koy takk. Ah, su ma xëyee takk benn su guddee su may wàcc ma mu daal di koy sànni. mais fël waroo ko takk durée bu yegg noonu xëy suba ba ngoon di nuyoo di jël xaalis virus bi nekk sa loxo nga jël gant takk ko fàllu yaa ngi lor sa bopp yow tamit fàllu yow moom yaa gën a doy war xanaa yow gisoo kër docteur yi foo leen fekk ñoom ñu ngi takk ay gant fàllu waa kër docteur dañ ci yor yu bëri su kenn ñëwee ñu faj ko dañu takk gant bu ñu paree sànni ko jëlaat beneen takk ko ñoom dañ cee yor lu bëree tax waaye nga xamante ne boo laalee nit ki wala nga laal xaalis du laal sa yaram kay loolu kay baax na daal gant mënu laa aar que dañu texe sax ñu ñu koy takk parce que virus bi day bëri suñu loxo deel raxas sa loxo ba mu set moo gën bëgg nga dëgg nag coronavirus boobu sax soo bëggee mu bañ la laal da ngay takk gant moo gën a wóor gant kay moom mooy masque ci loxo rek fàllu demeewul noonu gant waruñu ko takk dañu jël saabu raxas suñu loxo yi ba mu set wala ñu jël raxas suñu loxo yi moo gël gant bi baaxul day indi feebar. mën de li ma lay xamal daal moom moo di ne su ma gant yi daal maa ngi moom man du ma leen bàyyi ñaari pëkk daal laa ci yor damaa yaakaaroon ne yii xanaa war ngeen ko bëgg yéen ndeke daal li ma foogoon ne xam ngeen ko ndeke yéen xamoo leen dara ndax yéen doo leen déglu boo bëggee aaru daal li gën a wóor mooy na sa loxo yi. Fallou man daal li ma lay ñaan sa gant yi nga jël nga sànni ko parce que li baaxul mën plus yow soxna yow lan la yow da ngaa gën a xam ba gën a xam Fallou Fallou man su ma demee dinaa wax sam papa que yow instant bi am nga fi ay gants après moom dina fi ñëw. li gën a wóor moom mooy soo leen demee ngeen wax ko mu wut ci gants yi. di ko sol ndax moom day dem nit ñi di ko nuyu muy nuyonte ak ñoom di dugg jàkk yi dugg ci marché yi di dem fu ne nëwut ay gants mu di ko sol. wax nga dëgg kay sam papa foo ko fekk mi ngi nekk ay grand place ay lu kenn xamul su ma demee dinaa ko ko wax dégg nga ñoo ngi dem. li fi xew moom mooy gan moo fi nekk ngir war a mun a aaraate ci li nga xamante ne moo jëm ci feebaru coronavirus bi yéen ngeen nekkoon neewoo leen ma école ngeen nekkoon ba ba tey de loolu moom leen ma ko wax léegi wax leen ma fan ngeen nekkoon. ay yaay tam yaay suñu xarit. ah kay loolu laay wax déedéet ñun daal ci fàllu lañ nekkoon di waxtaan. tey daal fàllu ngeen xewal yéen ngeen di wut ci fàllu bay waxtaan jee ci fàllu waxtaan kañ bi gën a neex mooy ba ci biir kër gi. yee daal xam nga bu ñuy wàcc dama waxoon soxna ne ko fàllu léegi buy jaay day takk ay gants après boo ko ju xaalis bi rek dalay wax ni andi xaalis bi daal di tàllal loxo bi mooy gars yi après soxna weddi ma ma ne ko nañ dem bu ñu demee mu nekk fa yaay en tey dama ruus. yaa may reetaan sax waaye moom Fall lan lay takkee ay gars mel ne médecin <laughs> ah waa man de Fall na kaay daa yàgg a jóge nag ak a yàgg ci moom. yow yaay yow du loolu de yow yaay Fallou lu mu wax leex na de yow soxna yaay nekk fa di ko weddi Fallou di ko expliquer que gants yi da lay protéger ci coronavirus soxna yaay di ko weddi tey dama ruus yaay. yaay. yow du chaque jour soo soxlaa ay information ci affaire coronavirus man maa la koy jox. dëgg la waaw la déet. dëgg la sama papa bu soxlaa ay information kan moo ko koy jox. yow parce que man damay suivre information yi am ci coronavirus. waa kër docteur nee nañ sooy takk gant mën na laa protéger nga bañ a am coronavirus waxuma la nag fàllu fàllu day xëy suba ba ngoon yaay di jël gant yi di ko takk di laal xaalis di nuyonte est-ce que loolu baax na yaay. wax dëgg yàlla man de loolu jaaxal na ma. waaye li ma ca xam li ma ca xam mooy loxo yi dina ñàq de gan suba ba gudd jot <laughs> loolu moom doy na waar aw billahi alama ni tali laa la wax lu xew ni jaay laa la waxaagu ne den dafa dégg wala man de affaire gaa laay waxante xale yi ñoom comme ñoom ñooy indi information bu ne tey gaa lañ fi indi papa kay ma wax la. ma ne ba ma wax dara aw. alama ni tali Ndiaye aw ba ni tali doon jël première sa école ba aka jël laa ma ni tali acca gaawee ma gaaw. papa yow ma lay wax nga may xas papa Fallou boutique. waaw am na ay gants après nga dem jënd si pour waa kër gi dégg nga. la ma day gants pour waa kër gi. yow papa Fallou nee na gants yi day protéger pour Covid 19 coronavirus booy takk gants yi. doo am coronavirus papa yow da ngay dem ay grand place fu nekk ngay dem yow papa yow moom da ngay doxi rek waaw <laughs> ah, papa wax naa de. billahi foog ma ree aw jaaxal naa ma aw daa aala dem aala indi aw daa nii léegi papa yow xam nga yow comme yow da dem rek yow da ngay dem jënd ay gants après nga koy sol di ko nuyoo booy joxeeti xaalis di def comme Fallou loolu daal moo gën a woo waaye yan gaa la yan façon gaa la sax boobu na ma jëndaloo ay gants gants yi nan la mel. papa mooy gants comme médecin yi gants yu ñuy sol hôpital xamoo gants yooyu yow papa. waa baax na gants rek du ñu boole. ci biir rek waaye nijaay kat xam nga ne damaa tuddoon tuuti doon noppale ko waale ana gone yi ñu ngi ci biir wool ma ñi ñi ñëw soxna Binta Moodu kaanwee seen baay waaleel see wooteeti na de ma ne yéen a ma jëndaloo woon ay gaa gaa yaa ngi am waa nijaay yow gaa yi dafa tilim di ma u fóot ko ba mu set fóot dakaa kaa def nopp dalooti na nijaay ana gaaw ak fóot papa yow ay indi ay gants moo tax nga ñuy woo nii nii man damaa yaakaaroon lu rëy moo tax nga ñuy woo papa indi ay gants lu ci si jara woo loo ci woowee. ma ne dafa xew. gants yi ne ba kaa sol ne doo am corona. papa ah, papa yow lii booy say gants. papa papa gants yi dañu ko nar a jox ñun ñu sol ko. papa yow xool nga risque bi nga nax a jël. waa kër docteur neen na gants yi mënulaa protéger ci coronavirus au contraire da lay indi coronavirus ndax ni koy solee virus bi noonu lay nekkee sa loxo man moom soluma man kay nijaay yaa ngi doog a wax ci suba bi ma demee marché laa gis kay jaay ndu ko sol gant ba loxo yi weex tal dama ree ba bëgg a dee waaye ne dama kaaru soon a laaj gaa yi moom gants wul mu doon yéey du xoon naa la ko papa même fàllu yow yaay tamit da ko weddi léegi ñëpp dañuy sol gant papa man indi man dinaa ko sol man kay gis naa borom dugg bi sol ko yaay ngir yàlla bu leen ko son yee ngir yàlla dee leen gëm sama ay wax man maay déglu ay information ci coronavirus. soxna xam nga lan lii dëgg bi mooy papa xam nga sa gars yi sax bu fekkee da nga nit dafa dem bay sol gaa sa gars yi ni moom nit du ko sol yow sa gars yu tilim yii nii nga fi indi fii nii nekk fii nii di ko wax nit ñi sol ko papa. gis nga wér gi yaramu doomu aadama doomu aadama moo ko mën a liggéeyal boppam doo indi lu tilim lii nii naan ay raxasal leen ma ko beneen bi ci des papa bul sonal sa bopp coronavirus amul papa dimbali sa bopp noppal sa bopp bañ a topp ñii si seen rythme bi. yow moom xamoo di yow Modou yow eh dimbali ñu yow. yow gëmoo ba pare nekk fii di wax yow takkaloowuñ la gant dégg nga yow sa yoon nekku si yow chaque jour nga ne Covid amul. yaay indi gant yi. yaay jox ma gant yi ma dem sànni ko. kenn fi soli gant yaay kenn fi soli gant jox ma gant yi. yaay indi gant yi jox ma lii lan la. xam naa ka. yéen loo demee ne benn ñebe ci cin. di wej wej di wej wej di nii daal. xanaa boo indi wax ba seen baay ak seen yaay taxaw ngay war a mën a arrêté seen wax ju bari ji. yaay soxna mi dafa sopp waaye jël leen ci biir laa la wax. kii kay bu leen ko woowee te soxna dee ko woowee man ma Marcel Covid 19. man gars yi dama koy takk de ndax da lay protéger ci coronavirus bi. baax na man sax su ma waxee ngeen naan ma tubaab laa waaw baax na. jërëjëf euh, ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi seen émission diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag Africa Check moo ñu ko may ànd ci ak Theatre for Change ak ndimbalu kuréel gii di Google News Initiative suñu émission nag pour bëgg ci bokk yomb na danga ñuy envoyé message ci suñu numéro bi di am WhatsApp da nga ñuy envoyé message rek dañ la woo numéro téléphone bi nag mi ngi nekk 77 424 94 73 ma baamtuwaat ko 77. vingt 424 94 73 boo ñu envoyé message rek ñun dañ lay woo comme ça nga mën a bokk ci émission bi joxe sa xalaat comme ni ko ñëpp di defee. dañuy ñëwaat ci kii nga xamante ni moom mooy suñu question de la semaine question de la semaine bi mooy lan ngeen xalaat ci ñi nga xam ne dañuy takk gant ci diir gu yàgg bañ koo changé ne dañ ci dañ ciy protéger wu pour Covid bi lan ngeen ci xalaat. mën ngeen réagir si suñu page Facebook bu Africa mën ngeen joxe foofu seen i xalaat joxe fa li ngeen xalaat ci mbir moomu noonu. donc dañuy ñëwaat nag ci suñu invité di DJ Awadi DJ Awadi ñu ngi lay siyaar. waaw delloo siyaar. Ah, ñu ngi kontaan bu baax a baax ci patience bi nga am di ñu déglu. léegi lan nga déglu nga pièce bi. waaw c'est vrai que fu nekkoon j'avais des petits problèmes mën naa laa xaw a brosse tuuti rek. waaw euh, li ci ëpp solo mooy. ñi nga xam ne dañuy takk gaa lu yàgg. ba mm-hmm. pare ne ñoom dañ ciy protéger pour Covid bi maanaam dañ koy takk lu yàgg diir bu yàgg bañ koo changer. buñ la laajee dañ naan ñoom boo ko takkee da nga ciy protéger pour Covid bi donc yow lan nga xalaat ci loolu. waaw écoute c'est ce qui m'avait semblé comprendre en fait mooy gant di di je vois des gens aussi muy gant di masque dañ koy sol kama nga toute une journée ñu foog ne ils sont non loolu kay mënul la protéger su dee euh, au-delà de deux heures de trois heures de temps tu n'es plus protégé tu vois yow kay da ngay dem di ko partager rek. énormément en danger. Et c'est la même chose pour les masques aussi. da ngay gis nit ki démb masque bi la soloon lendemain mu génne ko poche bi solaat xam nga su demee gàllem teg ko ci benn table lendemain mu jëlaat masque bi sol xam teg ko ci poche bi xam nga fu ne la koy malade donc su dee gars na ba am maladie bi et que tu ne l'as pas jeté parce que gars bi da nga ko war a sànni wala nga vraiment nga désinfecté ko c'est des c'est désinfectable bon tu te mets en yow sa bopp et puis tu mets en aussi ñi nekk sa wet voilà y a des yoo xam ne c'est pas parce que sol nga gant c'est pas parce que sol nga masque dafa am durée à moins que mu nekk benn masque boo xam ne mun nañ ko fóot wala gant boo xam ne mun nañ ko fóot sinon c'est pas des gants à vie du ay masque à vie la plupart ay jetables la yu ci gën a bëri daal. Didier ñun gis nañ ne yow sa liggéey maanaam dañuy gis na yow da nga am engagement ndax gis nañu ci feebar yu bari yu fi jot a jaar lu ci mel ne ay Ebola ak yeneen feebar yu baree bari yoo xam ne jaar nañ fi mais gis nañ sa mhm. taxawaay à fois dangay ngay engagé wu da nekk di di di di xeex lool noonu mais ban ban ban sentiment ngay am sooy def loolu noonu. écoute suñu devoir la suñu wareef la aujourd'hui yàlla may nañu baat baat boobu il faut mu servir dara quoi tu vois da ngay askan bi soo defee concert yi ñëw di fay xam nga di leen jox di la jox sa seen xaalis donc y a des moments aussi euh, nit ñi suñ la suñ la nekk la il faut nga nekk leen aussi tu su dee suñu baat mën nañ ko utiliser pour euh, euh, sensibiliser def sensibilisation ci corona muy Ebola di Sida di palul war nañ suñu wareef la quoi tu yàlla may nañu baat il baat bi aussi ñu utiliser ko. Euh, foo xam ne dina am njëriñ suñu communauté suñu askan mais c'est pas juste pour ne gars yi acca fecc leen il faut de temps en temps aussi ñu xalaat gars ay et puis ñu amul baat ñu jox leen suñu baat Didier ñu gis ne tamit euh, comme ni ñu ko waxee xam nga feebaru covid bi mu ñëwee mm-hmm. bëri woon na ay ay ay lënt-lënt yu ci nekk maanaam nit ñi mënuñu ko woon comprendre à cent pour cent mais yéen taxawaay bi waaw bi ngeen ci am est-ce que nit ñi réellement ñi ngi leen doon déglu di bàyyi xel en tout cas tu sais yow sa bopp soo koy def bul xa est ce que ñëpp dinañ comprendre lu tax ma koy def na naka laa ko defee yow defal sa wareef et je pense que ñu bëri euh, comprendre nañ ne maladie bi euh, lu sérieux la woon mm-hmm. et ñu ci bëri aussi commencé nañ sol masque ñu ci bëri aussi euh, commencé nañ di moytu mm-hmm. et voilà te loolu moo doon suñu wareef loolu moo tax soo gisee artistes yëpp dañu manko foo euh, woyandoo woy bi kenn laa laajul dërëm ñëpp ñëw vraiment directement parce que Sénégal su soxla ñu ñëpp dañuy bàyyi lépp lu ñuy def pour nekkat euh, Sénégal quoi. di euh, ñi ngi ñi ngi ñëwaat daa mel ne am na auditeur bu nekk ci ligne bi mbokk mi nekk ci liñ bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam ah soxna si ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay ah, dalal jàmm ci émission bii di diisoo ngir aaru. kontaan émission waaw yow déglu nga suñu épisode tay bi. yow lan nga xalaat ci épisode tay bi. ah épisode bi de wax dëgg yàlla am na solo lool parce que dañuy loo loo xam daanaka dañ ko doon def yaakaar nañ lu baax la. te ah. nag yow méngoowul ak li ñu war a def ci coronavirus contre coronavirus. waaw soxna si nga baal ma fàttali ma tur bi ak foo may woowee. soxna Dégane Thiam. soxna Dégane Thiam Thiam Babel Demba Thiam. foo may woowe may naa la si junne. dégg la si unité 9. unité comme ni ma la ko laajee sànq rek épisode bi dégg nga ko yaa ngi soog a dugg émission bi wala. waaw maa ngi soog a dugg si émission bi. xam nga émission bi ni muy demee. waaw daa mel ni naa ni muy demee de en général. voilà donc nag léegi nag euh, xam nga comme ni muy demee gis nga li nekk ci biir pièce bi yëpp. donc gis nga jafe-jafe ci nekk léegi nag suñu acteurs yi ñu ngi fii ci plateau bi toog ak man. ñu ngi nii toog ak man ci studio bi. léegi nag yow dañuy maanaam théâtre bi bu nga ko baax da ngay wax ne fii nii laa bëgg a waxtaanee ak diw comme ça bu ko defee. dañuy dawalaat foofu noonu rek yow nga dugg fi nga bëgg a waxee joxe sa xalaat comme ni nga ko bëggee. waaw voilà léegi est-ce que mën nga maa wax fan nga bëggoon a duggee joxe sa xalaat. defe naa mooy séquence bi ñuy waxtaanee ak boutiquier bi. waa ah, bi par rapport ak gants yi. maanaam fi ñuy waxtaanee ak euh, Fallou. voilà Fallou par rapport ak waaw léegi kon dañuy dawalaat foofu noonu. yow nga wax stop. après rek nga dugg maanaam bu ñu dawalee ba fi nga bëgg a duggee yow. Mhm. da ngay wax stop bu ñu waxee stop rek après yow dangay ngay dugg rek joxe sa xalaat. d' accord. d' accord Aïcha Thiam Babel Demba kon ñu bàyyi la ñu dem. yow du waxoon naa la Fallou du day takk ay gants Fallou mi ngi nii gis nga buy jaay xoola gants yi lay sol ba pare xol sànq ba tey nii lay jëlee xaalis bi waxoon naa la ko yow da ngaa dëgër bopp. waa Fallou naa def. waa Fallou lii nga takk nag pour lan la. Oh, yéen ana ana Modou gën ñaa koo gis de moom. Modou moo ngi fi mooy si jàmm. lii moom xanaa dangaa mosul gis lii lii ay gants la. wayu tamit Fallou xanaa xamoon ni gants kenn waru ko takk. da jox ay kii da jox coronavirus. oh yow foo déggee loolu. Fallou gants yi ni nga ko takkee yow da gants yi ñaata temps nga koy takk. Oh, bis bu jot ma takk ma génnee gant bu bees bu bu bu su guddee su may tëdd ma ma ma ma sànni ko. lëy foo fàllu yow xanaa xamoo ni nga takkee masque kii bi gants yi mu yàgg ci sa loxo xanaa xamoo ni virus kese la sa loxo dalay indi coronavirus. mooy yow koo déggee loolu. Ah, léegi nag Thiam Babel dem Thiam da ngay dugg rek fi nga bëgg a duggee léegi Fallou mi ngi lay déglu. léegi lu ma bëggoon xamal Fall. waaw mooy gants yi muy takk di ko takk toute la journée. maanaam moom su xëyee fajar ba ngoon di ko takk waa Thiam Babel a Thiam fàlloo ngi nii jàkkaarloo yow léegi nag yow yaa war a jàkkaarloo boutique bi war ko sensibiliser voilà <laughs> Fallou lu <laughs> ma laa bëgg a xamal ne gars yi ngay takk soo xëyee suba ba ngoon di ko takk ci journée bi yëpp te saa yëkkatee xaalis jël xaalis ba pare jëlaat gan bi soit nga téye ci sa loxo wala nga téye ci leneen instant boobu noonu ci boppam yaa ngi propager microbe bi yow foo loolu information yi chaque jour ñu joxe ko par rapport ak gars yi. waa dégluwuma ma la man. waaw li ma yor ci client dañoo bëri. client bu ñëw indi xaalisam. Mhm. xaw ma fu mu jóge mhm. fekkee ne mhm. damaa takk sama gant. xaalis bi nga xamante ne moo jaar sama loxo du loolu du du laal sama loxo si gant bi lay yem. waaw loolu kay xel mun na koo nangu. si gant bi xam si gant bi. waaw si gant bi waaw waaye laal sama loxo. waaw waaye si mi woo gant bi teddu. déedéet mën kay mën kay su fekkee ne micro bi laalu ma kay baax na. waaw te peut-être même gant boobu noonu ngay jëlaat utiliser ko soit mën nga ko teg sa loxo teg ko sa bakkan wala nga teg ko sa gémmeñ mën ngay waxtaan ba laal sa gémmeñ wala laal sa bakkan ci même gant boobu noonu kon micro bi moo ngi ñëwaat ci yow te bu dee sa loxo la soo dindee gant bi saayoo yoo jaayee client ba pare dem raxasoog saabu microbe bi dee na nga jaayaat keneen raxasoog saabu microbe bi wala sa gel antiseptique. yow li ngay wax nii mel na ni xaw na yoonu maanaa de. loolu la de. Thiam Babel Demba waaw li nga bëggoon a wax wax nga ko. wax naa ko est-ce que sentir nga ne xaw nga ko convaincre. ah naa ko convaincre ndax nee na yenu na maanaam. maanaam yow jàpp nga ne yow soo demoon tuuti dina nangu. day nangu kay. soxna dëggan caam caam Babel Demba Caam kontaan nañ ci yow. a leen gën a kontaan jërëjëf jërëjëf. waaw kay émission na solo lool. merci beaucoup merci beaucoup. Euh, dañuy dellusiwaat ci suñu invité moom fàttali leen balaa ñuy dellusiwaat yéen a ngi ci seen émission bii di diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag théâtre radiophonique la euh, maanaam dañ fiy waxtaanee lépp li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum Covid 19. fréquence bi 103 la point 4 pour bokk suñu émission nag yomb na pour def ne déggan Thiam Babel Demba Thiam da ngay woote ci suñu numéro téléphone bi am WhatsApp maanaam da ngay envoyé message rek ñun ñu woo la numéro téléphone bi bi ngi nekk 77 424 94 73. boo ñu envoyé message rek ñun dañ lay woo comme ça nga bokk ci suñu émission léegi nag dañuy dellusiwaat ci DJ DJ maa ngi lay siyaaraat. delloo waaw léegi nag dafa am benn question bu ma la bëgg a laaj. par rapport ak liggéey bu am solo bi ngay def yëpp maanaam sensibilisation yi xam nga porté wu benn combat di def ay di génne ay son pour nit ñi bàyyi xel ci feebar bi léegi nag naka la ñu mën a continuer pour lii nga xamante ne moom mooy Covid 19 jóge fi naka lañu mën a def. mooy continuer di sensibiliser xam nga Covid jóge fii du du ñun ñoo koy décider maladie bi mu ngi fépp ci àdduna donc euh, mais dañuy continuer di aar suñu bopp di aar suñu mbokk. et puis euh, noonu rek la ñu mën a def ba nit ñi tàmm geste barrière yi euh, reculer loo mali maladie bi ndànk-ndànk mais du lu yomb et puis il faut pas aussi ñuy bàyyeeku di commencer fàtte di di bàyyi yenn mesures barrières yi. Mm-hmm. il faut pas nit ñëw si ragal dem vacciné wu euh, voilà et puis ku am ay ku yëg lu lu lu lu lu lu bizarre sa sa yaram dem gaaw ñu testé la te xam ne maladie bi du maladie bu bu bu slu euh, du dara soo ko teelee jël da koy teel a faj teel a et puis soo xamee ne yow da nga feebar toogal benn place bul génn. bul nax sa bopp bul nax say mbokk bu ne noo man noo soj la pratiquement la du dara non soo amee Covid da ngay nekk Covid naa par exemple man 31 décembre dama amoon Covid. ok amoon naa feebar bi donc dama toog sama gaale wax samay mbokk yëpp bul ma kenn set parce que dama am Covid. <laughs> ma leeral ñëpp laa ko leeral ku ñëw ma ne la noo mënoo ma gis dama feebar. xam léegi laa soog a génn sama kër donc euh, c'est pour te maladie bi ñëpp euh, ñëpp mën nañ ko am fépp lay jaar donc su la soo ko amee rek da ngay teel sa bopp aar say mbokk allo waaw waaw maa ngi lay dégg wala waaw léegi ma ma laajaat la benn question maanaam yow si sa liggéey bi yan jafe-jafe nga ci am yan jafe-jafe nga ciy jàkkoonteel bu dee am na ay jafe-jafe lan nga ñu mën a wax ne moom mooy jafe-jafe yi. par rapport les waaw par rapport ak Covid bi. oh jafe-jafe yi bëri bëri nañ am na ay marché yu bëri yoo xam ne dafa arrêté pendant longtemps tëgguñu euh, pendant longtemps tukkiwuñu mm-hmm. euh, xam ñun soo tukkiwul soo tëggul. sant yàlla que ñu ngi fii xam nga et puis gëm nañ ne euh, tant que yàlla mu ngi ñuy may euh, tuuti wérgu yaram war nañu mën a ñafe quoi ay góor la ñu li ñëpp la dal ci àdduna bi donc euh, góor moomul yéenay quoi il faut ñu continuer taxaw dem et puis xeex contre maladie bi quoi Didier Didier ñu ngi kontaan bu baax a baax mais nga des ak ñun ci ligne bi nga des ñun ci ligne bi ñu jël benn auditeur ñëwaat mi nekk si ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ah, sëñ bi nanga def. maa bi ak foo ñuy woowee. Eh, Talla Niang Mbengue. Talla Niang Mbengue. leen di woowee quelques ruelles ci mbedd mi yaa ngi Pikine daal ak ñun. waaw déglu nga suñu émission. waaw déglu naa ko waaw. dégg nga épisode bi am tax ma leen ah, jërëjëf yow nan nga jàngatee épisode tay bi. Euh, li kii wax euh, ci problème mu gants yi en fait euh, am na fu ma ci ànd ak am na fu ma foo xam que. jërëjëf ma ñëw foofu xam nga suñu émission pour auditeurs yi la comme ñu mel na yow te léegi nag dañoo bëgg boo dégloo épisode bi maanaam nga joxe sa xalaat mais da nga koy joxe ci beneen anam. maanaam da ngay da ngay da ngay duggaat ci biir théâtre bi comme si que ne yow da ngay jouer ci théâtre bi joxe sa xalaat maanaam xool partie bi nga xamante ni yow foofu nga bëgg waxtaane ñu dugal la foofu ndax acteurs yi ñu ngi fii nii ak man comme ça yow nga waxtaan ak ñoom en direct ki nga bëgg a waxtaanal nga waxtaan ak moom. waaw d'accord. voilà léegi nag yow ban partie nga bëggoon a dugal sa xalaat ban partie. bi nga xamante ni euh, xale ci boutique bi ah waaw waaw waaw mooy ci biir kër gi. waaw. d'accord mooy fi Binta di wax papaam mu jënd gant. ok léegi dañuy dem ci partie boobu noonu boo ñu egsee ba fi nga bëgg a joxe sa xalaat da wax stop rek nga joxe sa xalaat. waaw ok waaw ñu dem. papa waaw li xew waay. papa yow xam nga lan laa la bëgg a wax papa dama bëgg yow nga jënd ay gants Fallou boutique dañ koo gis léegi Fallou buy jaay day tëkk ay gants moom laa doon wax sama yaay léegi bu ko defee ñuy tëkk ay gants ñun ñëpp ci kër gi ah yaay. waaw. loolu moom dina ci baax moom dañoo war a jënd ay gants nag. waa déglu leen ma waa den maa déglu ma déglu leen ma du deen bëgg ma jënd ay gants. gars yi ba ma ko jëndee ban njariñ la am la ma bëgg xam rek ban njariñ. waaw papa yow Fallou nee na gants yi da lay protéger si Covid 19 Fallou léegi buy jaay ay gants lay takk. ah loola Fallou wax waa baax na comme loola Fallou wax man dina ma leen jëndal ay gaan te ba ma ko jëndee nag yéen sol ko ndax yéen a maa dégg nijaay kat xam nga ne gaa nag boo ko jëndee dinañ ko sol na waaw baax na man daal damaa bañ jënd ko adika fii du leen ko sol waa léegi nag gaa yaa ngi du deen ma doon wax ay gaa fanta naam nijaay wool ku ne nii ñëw yow papa ku la bàyyi nga naan da nga indi fii gan xanaa xamoo ne gan yi day joxe coronavirus papa yow war ngaa déglu Binta li muy wax ma ne yéena ma ko santa la ma wax nijaay gaa yi sax dafa tilim gaa yi tilim na de yaay yéen malade boo leen soxlaa naa ci coronavirus maa leen koy jox. dëgg la man maa koy jox. waaw d'accord papa lii baaxul taala ah, taala dugg si na donc dañ koy may mu joxe xalaatam. taala aca bismillah man li ma xam naa waaw mooy ay jaamoom. soo koy utiliser da ngay moytu gaa yoo xam ba pare. ma ne ma ña fóot ka ña fóot ka. ah ma ña ka fóot. ma ne ba tilimee nañu ko fóot ma ci xamoon mooy waaw gars yi suñu way docteur yi ñoo ko doon jëfandikoo te suñu ko jëfandikoo ba pare dañ koy dugal ci poubelle bi ngir bañ a lor keneen ci ñi xool ndax ay gants am na ay microbe yi ñuy nekk yoo xamante nii bët mënu ko gis te day lor merci Talla ah, gants soo ko xasee utilisé da nga koy sànni nga wutaat yeneen yu bees waa léegi ma laaj la ma laaj la waaw ban ko jëlee une fóot ko ba mu set une def si eau de nag waaw mais loolu baaxul soo xasee utiliser da nga koy sànni nga dem wutaat yeneen nga def pharmacie jënd yeneen gants ñun loolu lañ xam. moo yow Fallou nga xam ne day takk gants yi suba ba ngoon nga naan loolu baaxul. ah gants suba ba ngoon de xam nga soo ko takkee soo xasee utiliser kenn microbe déjà dugg na te doo ko gis mënoo koo gis loolu bët mënu ko gis. ma ne waa d'accord d'accord naa d'accord naa li wax d'accord na ma li wax waaye nag Fallou Kamag la. faalo ba demee ba di ko takk suba ba ngoon am na si la leer ay gants daal baa ko fóotewu def si eau de Javel war naa kaa mën weer wala ñaari weer. papa gants yi ngay wax noonu ay gants soo ko xasee utiliser da koy sànni. Ah, loolu la xam waa d'accord waa léegi am na li wax am na solo waa léegi nangu na ma nangu na ma parce que baa ko fóotee. bu def si eau de yi ba léegi desee des kon jënd ya bees daal moo la woo. dégg nga Mboro. waaw waaw ndax uh, li nga bëggoon a wax wax nga ko. ah waa maanaam yow sentir nga ne yow boo continuer ñoom di nga leen convaincre. waaw. maanaam yow suma la doon poser benn question. parce que parce que paa bi mi ngi commencé di kii mais paa soo ko xëccee tuuti. dina hmm. ñëw parce que dafa xamul rek. d' léegi yow boobu maanaam booy sensibiliser kon waroo gaaw a bàyyi da ngaa war a continuer. voilà sooy sensibiliser surtout sooy sensibiliser ñoo xam ne ni xamuñu. ba pare ja ki xam nga ki ngay sensibiliser su rek pour nga sensibiliser ko problème lay nekk. boobu doo gaaw a doo gaaw a bàyyi quoi da ngay continuer di continuer. ba mu ñëw. jaajëf Mbengue jaajëf kontaan nañ euh, ñi ngi ñi ngi kontaan bu baax a baax ci ci dugg bi nga dugg ci émission bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mbengue Mboro euh, dañuy ñëwaat ci ki nga xam ne moom mooy suñu invité tey di DJ Awadi mais balaa ñuy ñëw rek ma fàttali leen yéen a ngi ci seen émission bii di diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag Africa Check moo ñu ko may ànd ci ak Théâtre for Change ak ndimbalu kuréel gii di Google News Initiative waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi jégalu bu baax a baax nag suñu suñu suñu suñu invité tey di jégalu suñu auditeurs yi nga xam ne tamit bëggoon nañoo dugg te dugg ñu euh, DJ. allo. waaw DJ. waaw waaw léegi nag euh, damay ñëw ci question bi nga xamante ne question bu. bu ma bu ma bu ma amal solo la. maanaam ñun ñi nga xamante ni dañoo fare fii ci wàll yi ñuy wax Sénégal. maanaam dëkk ci dëkk boo xamante ni dafa xaw a dafa xaw a doy waar maanaam sensibiliser bi yombul mais ban taxawaay ak yan maanaam yan argument la ñu war a mën a am pour def suñu sensibilisation muy continuer. non jàppatoo bàyyi rek. Mhm. sensibilisation mosul yomb. Mhm. te du mos yomb parce que euh, quelque fois dañuy wax kenn duñu déglu sax ñun ñëpp mais dañu war a continuer parce que xam nañ ne répétition bi moo tax muy su yàggee dina dugg ci boppu nit donc euh, waruñu bàyyi quoi dañuy war a continuer rek et xam ne nit ñi aussi bëgg nañ seen bopp. Mhm. Euh, nit ñi dofuñu euh, nit ñi aussi xam nañ ne maladie baa ngi fi. Mhm. quelquefois dañuy bàyyeeku mais plus ñuy wax plus ñuy répété wu plus nit ñi di def attention et je pense que ñun ñëpp suñu defee un peu attention mun nañ ci génn et puis mun nañ pandémie mun na nekk suñu ginnaaw très rapidement mais. il faut ñu rester vigilant ku ci nekk ci ñun aussi bañ a bàyyeeku quoi bàyyi wala bàyyi sa vigilance quoi maanaam. waaw Didier nga nga baal ñu mais comme yow bokkoon nga ci ñi nga xamante ni ñoom Covid bi jot na leen laal maanaam bi mu la laalee yan yan yan yan jafe-jafe nga amoon. su la laalee gaynde day yëngal de. baal man yëngal na ma de. Ah. waaw kawate na ma fii kaw bu gaaw. ok. waaw. mais yow ñi nga xam ne ñi nga xam ne dalaguleen. naa ci wàll aussi sama waa kër yëpp. Hmm? donc vraiment ñun ñëpp ñëpp daanandoo ala en même temps vraiment yëngal na ma daal. ok et puis da ngay mën a def dara da ngay soj. Euh, euh, mel ni ku sibiru mel ni ku grippe mel ni ku soj buy ma sa yaram bi yëpp di metti euh, maladie bi sax su demee da ngay continuer di xoox fatigué euh, sooy nooy day métti donc vraiment euh, lu ñu war a moytu la quoi man xam naa <laughs> li ma yëg sama yaram. gis hmm. naa aussi nu mu yëngalee sama waa kër. vraiment nañu moytu quoi duwaay foo duwaay caaxaan te dëgg la dafa am man nii j'étais du 31 moom. Hmm. maa ngi tëddoon sama kër. vraiment te ma hôpital heureusement parce que gars yi teel ma jël en charge. mais euh, sonnoon na donc ça veut dire que maladie baa ngi fi. mais sa veut aussi que. soo ko jëlee soo ko teelee jël en charge nga ci teel a génn mën nga ci gaaw a génn man ça fait peut-être deux semaines la ma sonal mais troisième semaine bi maa ngi am tawfeex donc maa sant yàlla bu baax a baax euh, Didier gën a ñaaxaat nit ñi ci Didier vigilance Didier léegi benn question bi ma nga xam ne moom dama la ko bëggoon a poser mooy yow lan moo tax boobaak léegi découragé woo ci sensibilisation bi lan lan moo lan moo la motiver ba léegi ngay continuer di di sensibiliser. ah mënuma ko <laughs> bañ a def gis nga lu ma dal. man xam naa li ma dal 31 <laughs> décembre donc euh, mënuma ko foowee. Euh, dama xam ne lu am la et puis dama gis ne ñu bëri aussi dañuy foog na ay foo la gars dañuy soob maladie bi amul xam nga dañuy foog na aussi soj bu ndaw la rek du soj maladie bu am la xam te aw aw ma droit bàyyi quoi aw ma droit bàyyi parce que tant que maladie baa ngi fii je pense que voilà suñu baat il faut mu am lu muy njëriñ quoi. waaw Didier. naam xanaa jaajëfal rek. di kontaan bu baax a baax merci à féliciter ci aussi seen engagement. et ci liggéey bi ngeen di liggéey am na solo trop liggéey bi. maa ngi leen di leen encourager vraiment tout notre force. voilà <laughs> di la wax kàddu gu mujj gi lan la. di leen remercier rek di remercier seen auditeurs aussi ñëpp ñuy woote di suivre programme bi di leen ne programme bu am solo la voilà ñuy continuer aussi ñoom tam ñuy jàpp ci combat bi. di jàllalee message jërëjëf jërëjëf DJ ñu ngi kontaan bu baax a baax ci dalal bi ñu la dalal ci suñu émission wu tey di kontaan bu baax a baax waaw di la jox dig daje rek ci yeneen i émission incha allah jaajëf jaajëf kontaan nañ bu baax a baax euh, di kontaan ci DJ moom mu nga xamante ni moo nekk suñu invité tey di rafetlu ay kàddoom di rafetlu partage bi nga xam ne def na ko ak ñun ci liggéey ci domaine bi mu nga xamante ni foofu la nekk muy domaine musique bi ndax ku ne xam na ni Covid ak euh, maanaam Covid dafa soxla maanaam ñuy def sensibilisation di waxtaan ak nit ñi di xelal nit ñi di leen bàyyiloo xel ci feebar bi mi ngi fi. di leen bàyyiloo xeel tamit ci naka la ñu mën a def pour moytu ko dafay am solo torop kon DJ dañ koy jaajëfal di jaajëfal ñi nga xamante ni joxe nañu seen xalaat ci émission bi yëpp di kontaan bu baax a baax di dalalaat suñu benn auditeur ci suñu émission di diisoo ngir allo mbokk mi allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi lay nuyu di la laaj tur bi ak foo may woowe tur bi Amadou Ndiaye la maa ngi jaata euh, Ndiaye yow sama doomu baay nga. waaw ñi ngi kontaan bu baax a baax. yow déglu nga suñu épisode tey. waaw déglu naa bu baax waaw. waaw nan nga jàngatee épisode tey bi. waaw épisode tey bi moom am na solo comme d'habitude rek. ndax euh, loo loo si gis rek jàngat nga jëlee à chaque fois à chaque fois expérience nga si jëlee dina tax ñuy déglu dinañu xam. dina ku xal woon tamit nga xam lu bëri ci diggante bi. Amadou Ndiaye man su ma la déggee dafa mel ne yàgg ngaa dugg ci émission bi. waaw waaw yàgg kon daanaka yow xam nga émission bi ni muy ni muy demee. waaw léegi nag dama bëggoon a xam rek maanaam yow comme déglu nga épisode bi fan nga bëggoon a joxe sa contribution. Euh, ci ci kii bi boutiquier ah, ci boutiquier bi. maanaam ci Fallou. waaw parce que gaa ngi fi nii ci palaato bi léegi dama leen di bàyyi ñu reprendre seen boobu noonu comme ça bu ko defee yow nga mën a dugg joxe sa xalaat. waa léegi nag booy joxe sa xalaat rek boo demee bu fi nga soxlaa dugg danga naan stop comme ça nga dugg. yow gis nga lu ma la waxoon moo ngi nii xoola Fallou Fallou xaalis bi xoola gants yi nu mu ko takkee ma wax la ba sonn ngay jaay dëgër bopp xoola fàllu nu muy def waa fàllu na nga def yéen gëj naa leen gis de waaw moom Modou moom anamu moo ngi kër ga mu ngi si lii nga takk nag pour lan la lii mooy su may gants moom laay aaroo laay waa fàllu yaa ngi lox sa bopp de yow xanaa xamoo ni gants yi day joxe coronavirus wala xamoo ko déedéet soo ko takkuwul si ngay am coronavirus loolu lañ ne dangay ngay nekk di raxasu soo bañee raxasu nag da ngay wut gan moo gën a yomb ndax euh, raxasu bi waaw Amadou waa njaajaar da ngay dugg fi nga bëgg a duggee rek Fallou mi ngi lay déglu waaw kooku Amadou na def ma fi rek yaa ngi ci jàmm xanaa dangaa bëggoon ci ci gan yi non man kay ñëw laa bëggoon wax ci mbirum gan yooyu waaw gan yi de ñu ngi fii ñu ngi fii sax koo seer yor naa ci yeneen dëgg la li nga def noonu. waaw lu baax la. dëgg la kay waxoon naa leen lu baax la di nga am lu ne gaa yi warul yàgg ci sa loxo. gaa yi. waaw. Euh, déedéet du tax koo yàgg su ma solee benn. su may tëdd euh. guddi rek ma ma ma ma daal di koy dindi. tax ko tax koo yàgg est-ce que xam nga ne est-ce que xam nga ne médecin yi nekk hôpital chaque seconde dañuy changer gant est-ce que xam nga loolu. ñooñu dañoo yàq xaalis rek. waxoon nañu ko waxoon nañu ko lu lu lu bëri lii moo tax réew mi réew mi dara mënu fee waaw xam nga yow yaa ngi laal xaalis bi est-ce que xaalis bi nga laal xam nga fu mu jógee looloo tax nag may tax gaa yi nag waaw xam nga xamoo ne xaalis mu jógee léegi boo laalee xaalis sa yaram xasan nga wokkatu sa bakkan wala sa gémmiñ nga laal ko est-ce que xam nga ne loolu muccoo microbe yaa ngi ne microbe yaa ngi fees sa kaw loolu de gisoo ma ko woon noonu te pourtant yaa ngi takk ay gants <laughs> maa ngi takk gant de waaw man mi di wax ak yow hôpital laa nekk damay takk gant waaye saa bu ma takkee benn du yàgg dara mu dindi ko changé beneen gant ah, kon li yow gant yi ngay takk sax ba tey mënu la aar à cent pour cent ah. gant yi mun la aar yow kañ lenn ngay mën a def tegal sa gel sa wet bu mag boo jëlee xaalis boo pare teg raxasoo ko bala boo ñibbee sa kër nga raxasoo ko saabu loolu de moo la mën a aar fu mu toll nii takk sa masque waaw waaw loolu de. waaw te na futt loxo yi sax mën nañu métti wala sa loxo yi mën nañoo néew ndax xama fu gars yi ñu ko defaree xama fu ñu ko jëlee. Euh, kii euh, tax koo néew yi léeg-léeg dafa dafa doon xasan sama loxo yi nii rek. mu na xam nga loolu baaxul. sa sa loxo di xasan sa loxo di néew yi loolu baaxul. waaw waaw gars yi xama que loolu yow xalaat nga ko. ah déet boo gisoo gisoo ah, ngi noonu la loolu donc da nga siy bàyyi xel. Amadou. waaw. waa njaajaar nan nga gisee maanaam ni nga waxtaanee ak Fallou waaw waxtaan naa ak moom de jàpp naa ne tamit convaincre naa ko waaw. convaincre nga ko maanaam ci ci ni muy waxee ak yow rek xam nga ni kii dina wàcc. waa xam naa dina wàcc léegi yow ñi mel ne Fallou loo leen di conseillé ni ñi mel ne Fallou. waaw xam nga ñu mel ni Fallou bëri nañ ci dëkk bi. Hmm. ndax ku xamul rek xamoo. waaye boo gisee ku xam ñu mel ni waa Kër Docteur. Hmm. ñoom bu ñu tegee ci yoon rek bi nga tegu ci yoon bi war. Amadou dañ lay jaajëfal di kontaan bu baax baax si sa dugg si. jaajëf ma leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission bi di diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag théâtre radiophonique la Africa Check moo leen ko may ak théâtre for change ak ndimbalu kuréel gii di Google News Initiative mbokk mi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi maa ngi lay nuyu ah, kooku dafa mel na xàmme naa baat bi daa mel ne Cheikh Moussa Fatma ma la la de ah, ah, maa ngi lay jaajëfal di la kontaane bu baax a baax waaw amati mbégte bu baax a baax a baax. waaw ñu nit ñu nit amati mbégte dalal la fii ci suñu émission diisoo ngir aaru. jërëjëf waaw. waaw déglu nga épisode tay bi. waaw déglu naa ko bu baax a moo ko jàngatee. ah macha allah li ma yàgg di wax rek amati na solo wax dëgg fa yàlla. liggéey moom chaque fois dama naan rek yàlla na fekk askan bi ñëpp di ko dégg te buñ ko dégloo tamit yàlla na fekk ñu dégg ko incha allah. Euh, léegi nag euh, Cheikh Mousse comme yow moom xam nga mbir yi daanaka nu muy demee ndax suñu auditeur boo xamante ni daanaka chaque émission nga daal di ñëw joxe sa xalaat. léegi nag euh, dañ lay bàyyi rek nga wax ma fan nga bëgg a duggee tey joxe sa xalaat. waaw man maa ngi bëgg ci ci xibaar bi ñëwee si si paat yi. maanaam paat yi biñ koy wax ba muy waaj a dem pour jëndi gants yi foofu laa bëgg a. maanaam fi Binta ñëwee di waxtaan ak paa bi pour mu uti ji gants. voilà merci ok donc nag comme ni nga ko xamee di ni nga koy defee rek artistes yi ñu ngi fii nii toog ak man dañuy déparé foofu rek mais saa yoo bëggee dugg nag xam nga li nga war a stop ngay wax rek comme ça nga dugg. aw billahi alama demeti aw baax na rek. yow papa déglul ma wax la papa daal dañoo gis Fallou Fallou boutique papa. waaw day tëkk ay gants buy jaay léegi buy jël xaalis bi ci gants yi la koy jëlee moom laa doon expliquer sama yaay sànq ba tey. papa yow da ngay dem grand place di nuyoo rek yow na papa da ngaa a jënd ay gants comme Fallou bu ko defee ngay tëkk gants yi di nuyoo. waa aw gants yi maa jëndaloo sax gants yi lan la nan la mel. papa yow moo gants yi médecin yi di sol wax naa ko sama yaay yow yaay expliqué naa la ko. kii bu la waxee li mu wax ko teg ndax yow Fallou bu demee bay ut gants di ko sol ak Fallou ñi muy recevoir par jour nga xamante ne loolu na gants yooyu gants yu baax la. waa baax na comme noo la demee. din ma dem te ba ma demee di ma leen jëndal ay gants. waaw te xel leen ba ba ma ko jëndee rek ba ñëwee sol leen. ah Cheikh Moussa nee na stop waaw Cheikh Moussa ñu bàyyi la rek nga dugg fi nga bëgg a duggee. yow kan nga bëgg a waxtaanal paa bi wala. paa bi waaw. waa ca bismillah paa baa ngi lay dégg Baye Ndiaye. Baye Ndiaye. waaw. siyaar naa la bu baax. waaye fii la rawee. waaw Baye Ndiaye euh, man dafa mel ni dama dégg nga ni waaw euh, Binta daf la wax pour nga dem uti ji ay gaa nga di ko sol parce que moom gis na benn jaaykatu bitib di ko sol. waaw loolu de la ma wax. waaw xam na même bu fekkee jaaykatu bitib kooku mi ngi ci liggéeyam. waaw comme nag yow Baye Ndiaye. yaa ngi xalaat nga sañ sa ba rafet def sa ñetti abdu bu rafet. waaw après nga teg sa ay gaa loolu loolu loolu kii rafetul. parce que sam papa day nekk si grand place yi ku nekk mu lay jox loxo loolu tamit baaxul. dégg naa li mu waaw dëgg la loolu dëgg la waaye bul fàttali tamit gaa yi man tamit dégg naa ci benn médecin bu ne. Ah. corona bi virus bi. bu nekkee ci gant moo ëpp biir bu mu fay nekk pour dund fa maanaam comme par rapport ak bu fekkee dafa nekk ci benn ci loke bunti wala mu nekk ci benn yére mais su nekkee si matière gant boobu noonu mën na fa yàgg mën na fa def ay waxtu yu bëri léegi nag imaginer nga sol ko yàlla defee nga nuyu kenn mu am ko ngay dox ak bi mën nga ko jox ñu bëree bëri li gën a wóor ba gën a wóor daal yi dañ ah. ko bàyyi ko ak ñuy liggéey nga xam ne ñoom mbirum gaale mais yow liggéey yow pour man a boo génnee. fànn du dégg naa kii lii moo wax am na solo de. am na solo waaw. Ah, Cheikh Massiré li mu wax moom. Ah. dégg nañ ko te am na solo lool sax. Ah. lii moo tax waxtaan baax. ndax boo waxtaanee. dégg naa si aw a xam fa nga jëm. aw waxal dégg naa si tontu ka tontul <laughs> fii. dégg naa dégg naa waaw. Cheikh Massiré. ok ñu ngi kontaanati. jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf di la jaajëfalaat bu baax a baax rek waaw maa ngi jaajëf jaajëf jaajëf ñi ngi kontaanaat waaye yéen a ngi seen émission diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag euh, théâtre radiophonique la mi ngi amee fii nii ci rajo Oxygène FM fréquence bi di 103 point 4 ci ndimbalu nag ki nga xamante ni moom mooy Africa Check ak Théâtre for Change ak ndimbalu kuréel gii di Google News Initiative damay euh, bàyyi suma acteurs yi ñu présenté wu. asalaamaaleykum nuyu naa leen man la ñuy euh, Khady Fall Diaw di soxna Fanta. asalaamaaleykum man maa ngi tudd bu Diop nekkoon soxna. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Yacine Diop euh, nekk Binta. asalaamaaleykum man la Mame Mbodj Gueye indi ma wax Baye Ndiaye. Jara bootawaay. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye. di gérer lu Moodu waaye tey jii ne maa toog fii nii ci palaato bi nekkoon présentateur bi donc di leen kontaanee bu baax a baax damay bàyyi Momadou mu présenté wu. waaw man la du Diol maa nekkoon euh, Fallou maa nekkaat Cheikh. ñu ngi leen di jaajëfal di kontaan bu baax a baax ci suñu auditeurs yi nga xam ne ñoom ñoo woote woon. di leen di jox dig daje ci beneen lundi di présenté ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk euh, defar liggéey bi ba mu jàkk ki monté épisode bi moom mooy Fallou Sow euh, ki toogoon ci kii bi mooy Emmanuel euh, Mendy DJ Las di kontaan bu baax a baax ci bopp la jéeri moom mi nga xamante ne moo toog fii ni jàkkaarloog man waaye nag di kontaan ci Kumba moom moo jagal liggéey bi ba lépp mën a jaar ci yoon di kontaan bu baax a baax ci Samba Jalamba Badji di moom moo nekkoon présentateur bi mais tey dafa xaw a yi léegi nag ñu ngi kontaan ci si soxna Thiam Thiam Babel Demba Thiam ak Talla taala moom it ñu ngi koy gërëm bu baax a baax taala ja ak Mamadou Ndiaye euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax ak monsieur Cheikh monsieur Fatma Ndiaye moom tamit ñu ngi koy béggee bu baax a baax di kontaan bu baax baax di leen jox dig daje beneen altine ci même heure maanaam dix huit heures ba dix neuf heures ñu ngi koy rediviser nag dimanche bu jot à partir de onze heures ba midi incha allah jërë ngeen jëf.